mu yegg si acca mbër ñëwal ngi noonu jamus lay dajeel jamus nuyu naa jubilaa bisimilah inal waal yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si bi ñu ngi ñaan suñu ñaari waajur fañ jëm yàlla na gën a fuñ jógee xam nga di nuyu ñu saal bi ñëpp di nuyu sama adversaire Caatu Mbay Jaañ nuyu naa la maa lay fay bisimilah ina waa yàlla jërëjëf Sëriñ Touba jërëjëf Sëriñ Touba jërëjëf Sëriñ Touba ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi sant samay ñaari waajur di sant mbooloo mi fi teew Kulxum di nuyu sama adversaire Jamus di nuyu Père Mbaye Diagne sama papa la sama lépp la di nuyu waa Wakaam di nuyu waa Bambey Séeréer bàyyi ma kenn bu ma limee damay juum Jax production arène nationale yéen a war a bëre combat bu njëkk bi li fa war a neex yëpp kon yéen a ko war wone nu ngeen ko waajale non man maa koy wone man maa koy def yow yaay def man maay def maay bëre maay duma maay daan yaay bëre yaay bëre maay xeex maay duma maay daan. Caatu Mbaye Diagne dégg nga jamus. kii xaalisu làmb yoonam newu ci. lu tax daa war a basketi. moom yi lu tax mu war a basketi. booy bu ma la jàppee nga xam ne xaalisu làmb sama yoon ngi ci wala sama yoon newu ci. kii. Mhm. mu ngi yàq xaalis de ci basket bi. dafa am dafa dafa am place. booy li la intéressé mooy avance bii nga lekk nga war a wax nga ñuy wax ay waxi basket. looy wax ci avance bi nga lekk wax waxi basket waxal ci làmb ji a basket yi. booy bu ma la jàppee yoonam ma la jàppee. waaw su ma la jàppee dama lay duma daan la si kàttanu yàlla. yow basket nga yelloo. barki maam Serap Fall nekk nii sa du sam place. lu tax du sa place. parce que ñu xam dëgg-dëgg xam nañ mais su ma taxawee di ko wax sax am na ñoo xam ne duñ ko mën a a jaar. booy bi du ma moroomam sax daa am nu mu demee moo dama war a bëri moom. maanaam wax dafa yomb. ñu jox la micro. Mhm. ne la waxal ngay wax dafa yomb. kii man ak moom du làmb sax. lu tax du làmb. daa nekkul làmb rek. daa nekkul booy juumoo de man ak yow du làmb. juumoo li nga wax nii juumoo de. maa la mën deux cent fois aller retour. yow ku la gis ku la gis te xam de eh, eh, eh, noppi su may wax da ngay noppi booy. su arbitre sifflé dama lay duma dama lay daan. yow taxaw maa dugg jàmm yow. yow taxaw ma faa dugg jàmm nga noppee nga faa dugg. boo déggee turu jàmm nga da ngay fat say nopp booy mu nga fa tege. jàmm gën booy boo déggee turu jàmm nga laa la wax da ngay fat say nopp booy. waaw ci moom laay commencé nag. jàppee ci moom laay commencé séddale. ci moom ngay commencé séddale. incha allah bu neexee yàlla 22. père kii amul lu muy séddale. bu la yeboo xoolal xam nga ci laamu bu la yeboo bu la yeboo nga sant ñi nga eh, war a sant. Eh, nga xam ne jour baabu incha allah bu neexee yàlla maay toog sant xam nga jour laamu ja lan nga moom. booy garaaw décourage. maa ngi félicitation. mooy tëdd sax du mal xalaat yow lu tax am combat booy tëdd doo ko xalaat. barki Serigne Touba bu may tëdd damay xoolal. vingt heures ma tëdd nelaw ba bidanti. lu tax loolu. ndax damaa xam ne kii la fa def eh tàmpale tàmpale moo tax def sa xel mi ngay toog di waxtaan di dégg di dugg fépp nga war a dugg dégg nga. dalal sa xel mi lépp li nga war a def nga def ko làmb la rek. mais dama lay duma dàll ci kàddu yàlla am ci làmb ji lii. waaw kon war na mën a neex. sama nijaay sama nijaay sama nijaay xam nga waa di woo waa jàmm gën yëpp bàyyiwuma kenn xam nga di woo jàmm gën waa Kër Massar waa Kër Mbay Fall Petit Mbaaw Zang Mbaaw bàyyiwuma kenn di leen woo ñëpp nañ ñëw jàpp ci làmb ji. xam nga ma jàpp sa waay duma ko daan ko. Ah, jaajëf mayel caatu mbay jaaj maay woo waa Bambey séeréer gépp o foog la séeréer mi xëy xooyaanun fop Bambey séeréer i maay woo waa Bambey maay woo waa Wakaam rawatina Wakaam gi may yeewoo chaque jour waa ma bëgg nga xam ne Wakaam yeewoo ragal du fa yeewoo nga xam loolu. rafet na acca rendez-vous bi le 22. voilà kon jërëjëf Gàkku Mbaye jërëjëf Jamus ñoom ñaar ñooy bëree combat bu njëkk bi. journée Jax production arène nationale.